administration financière. waaw loolu la wax donc mu nek lo xam ne euh, le, la le bo boo nangul nañ ko ko mais l'Obs en tout cas càmbar nako bu baax a baax donc euh, xol ko donc ki nga xam mom moy euh, Babacar Gueye nak denk nek attaquant fa li nga xam moy mooy Paderborn ci Allemagne Mom nee dafa bëgg a dugal fukki but pour mun a ñëw. championnat bu mag kañ waaw pour mun a ñëw fi nga xam ne moom mooy équipe nationale. Walf Quotidien Walf moom dafa wax ne meurtre mi nga xam ne mooy Binta Camara police moom dugg na ci détail wax na li xew lépp. ndaw si dañ koo xoj ak fulaar bi nga xam ne ndeysaan moom la yoroon ci baatam xam naa du ñàkk doon julleeg wala mu doon kii daal sellal daal fulaar boobu mu takk daal gis xam ne dafay dafay dafay muuru waaw ndeysaan fulaar boobu mu takkoon nag moom la ko waa ji xojee ba nga xam ne moom mooy euh, moom mooy kii léegi nag suspect bi ci boppam ki nga xam ne parce que ba léegi suspect la donc suspect bi ko voilà donc suspect bi moom nee na euh, dafa xaal ba gardien bi dem mu ñëw dugg moom def njombem

Wow, donc là loolu nek na lo xamné euh Walf dal mom ci ci la xam ci page setam donc loolu la l'enquête l'enquête ba légui ñu ñëwaat ci siège violence yi nga xamné mi ngi fi am jamono yi ki nga euh, mu am ci bu am solo euh, peine de mort baax na waaw peine baax na gaa mais nañ ci xalaat du ñàkk moom ay mécanisme yu gars yi di mun a teg pour loolu mun a mun a mun a mun a jàppale moom neena jamono bii ñu toll temb ni amul kenn ku nekk en sécurité même sa biir kër sax nekkoo fa sécurité. ah ñi nga gën a wóolu ñoo lay def li kañ. waaw donc loolu daf waaw yéeme na ci wax na sax lu ci gën a sori. Ah. dem na ba wax ne boo demee bay am doom. da nga war a jël say responsabilité assumer ko waaw assumer yar leen waaw toppatoo leen waaw donc kon déjà loolu daal nekk na li nga xam ne daf si euh, daf siy taxaw donc depuis 2015 ba léegi nag ah lépp li nga xam ne daal cycle indéterminé bu rey yi ñu fi am waaw donc loolu nekk na li nga xam ne taxaw na si donc mi ngi noonu Pape Jean euh, donc euh, loolu la ñu wax daal di ngeen ko gis ci site bi ah waat di ñëwal dina de daana waat di njàkk waat di njàkk waaw ñëw na de ak moo grave waaw ñëwatina na ñëwatina de enquête daal am na lu ñu ci wax lan la wax nag ah ci mbay jaag bàcc li dans xool li Ablaye Wade wax ma nga ca enquête page cinq. ah waaw bu fa gars yi suñu maam stratège la. ah bu fa gars yi duggee daal. Ah, euh, du ñàkk dinañ ko dinañ ko mën a pharmacien yi tamit euh, wax dëgg yàlla ñoom it ñi ngi grève de fi mu nekk nii. léegi nag xam nga Seydina dafa am benn affaire bu am nag. Mhm. mooy man lépp li mu wax. Mhm. xam nga waxoon naa si euh, maanaam affaire xëccoo mooy cantaku ni. waaw man la sëriñ bi dina wax. sëriñ Touba dina wax. mu wax. Euh, ma ni la ña wax ma pharmacien yi barki demb mhm. waaw la pharmacien yi. Mhm. dinañ waxtaan ak ñoom dinañ ko bàyyi parce que ni ñu nar a lor mo ëpp li ñu nar a lu leer nak dafa mel ni légui mag man mën naa nekk sëriñu émission bi légui def bés ni ki def nañ la sëriñu émission bi. donc lepp loo ci waaye sama mëkk mhm. du du du laar yi. déedéet laar déedéet du ma nekk da nekk Magui Coulibaly. ah bon waaw. ok euh, ñu dem ci les échos. <laughs> les échos waaw les échos moom dal nee police wax na lepp lu xew ci enquête nee na daal Binta Camara moom dañ ko doon jéem a siif ci biir jéem a siif bi mbir mi antuwul ñu mu génn àdduna. mais leer kenn yeggul si moom. déedéet yeggul si moom tentative de viol la tentative de viol la ñu gis xam nga mooy njiitlaayu uh, góor yi. Mhm. dañoo gis ne mu takk deret lañ lañ gis mu takk deret ci këru waa ko rey. Mhm. moom moom njiitlaay bi mu soloon. Mhm. dañ gis mu takk deret donc Binta dafa xeex ak waa ji gejj ko def ko lépp. yaa ngi dégg ci dënn beeg ci digg gannaaw beeg ci ci ci waay yàllaam yi ndaw si daal dasee cee kon waa ji def ça veut dire que da ko doon jéema a siif. Uh-huh. parce que waa yàlla bu ñu demee ba xosi ko xosi sa digg gannaaw euh, jàpp la ça veut dire kon. xeex nañu xeex bu métti. xeex nañ xeex nañ uh-huh. waaw donc dèjà loolu euh, Malal Kamal yi nga xam ne mooy waajuru xale bu jigéen nag moom nee na ndeysaan Pape Alioune mii lay doomam. dañ koo jàppoon comme membre du famille. dëgg la donc loolu mu nekk loo xam ne euh, wu wu kii Macky Sall nag président. woo na ko de woo na Malal. jaale ko. wax dëgg yàlla. Ah, mooy wareefam mooy mooy mooy mooy wareefam fa dem nag parce que li dafa metti waa dina dem incha allah dina dem dina dem les échos ñëwaat na ci Ousmane Beng. Mhm. Ousmane ndeysaan moom daa demoon ci Facebook ne nañ lay jigéen ñi waaw man de xaw ma buñ lay jigéen ñi nuñ nar a def. non c'est xam nga lan laa ah. man laa war a. foofu ñu leen na. Euh, euh, euh, ah. gars yi avant ngeen di publier si Facebook Twitter wala wala wala wala seen WhatsApp yi. problème bu baax li ngeen di wax parce que oh. vraiment c'est n'importe quoi mais est-ce que ça fait pour pour pour pour lol ah ya dañu déraper ren neex nañ fa def lolou nañ nañ xol dañ niñ koy niñ koy defé dal 455 mo am ci mois d'avril avril avril waxuma at bi de avril non ni 455 accidents. C'est ben 10 nit ñoo ci gën 3692 arrestations. pourtant police nga japp de police ngi japp de. waaw mais prison était ce dañ ci ah 3698 lañ jàpp waaw donc 200. Ah waaw ñu ci libéré dinañ ko parce que fi mi ngi ci les échos 280 nit lañ japp ci affaire drogue drogue bi mi ngi lëmbe réew mi te te nekkul li nga xam ne ne baax moom fa donc kon xolama kii rek njombe gi mu wax ni moom ñu ko accusé ne daa siif xale bi am douze ans moom nee na moom du xale bi de waaye yaayu xale bi lay kii di tàkk na. ci dafa doy waar. moom ñu ngi koy jiiñ fii moom léegi tam jéggi na jëli na ki nga xam ne moom mooy. kii wérul <laughs> kii wérul dañ kaa bett dañ kaa bett <laughs> euh, Laas. Laas moom li ñu xëyee tey doy na waar. Christophe Castaner di ministre français de l'intérieur moom nee na terrorisme am na fii Sénégal yal ah, nañu ci yàlla musal may jàmm waaw moom yal nañu ci yàlla musal ñun taluñu ay kii de ah, ah. taluñu ay ay ay terrorisme ak yooyu yooyu daal moom ñoom daal nañu si yàlla musal daal nañ ci yàlla musal waayam rëy na de waaw wax bi rëy na lool ndeysaan Binta Camara delloo nañ ko yóbbu nañ ko ci këram bu mujj ban façon terrorisme la wax terrorisme waaw mi ngi ci biir laas nag ah. terrorisme bi mu wax daal nee na le terrorisme est présent au Sénégal léegi nag moom moo ko wax page six bi bu ko gars lii liiree du ñàkk dinañ si xam dara dëgg la yaa ngi dégg euh, kële nga xam ne mooy Binta Camara dem si yàlla si yóbbu nañ ko ci këram bu mujj démb dëgg la waaw ndeysaan ful maanaam mbooloo bu takkoo takku ndeysaan indi ko nit ñi di jooy ah mu nekk loo xam ne daal lu diis a diis a diis a diis daal doy na waar eh, waaw léegi nag fi mu ne nii police moom it bawul gars yi de trois mille six cent quatre-vingt-dix-huit arrestation quatorze bandes lañ lañ lañ lañ démantelé kon police mi ngi liggéey mi ngi liggéey bu baax rek coolee bëri xam nga nag weer wii di ñëw nii mooy xew-xewu coupe d'Afrique euh, coupe d'Afrique bi. Mhm. waaw télé télé Sénégal. Mhm. décroché na exclusivité bi. waaw ñoom Racine Talla. waaw nee na daal moom moom jël na ko Abdoulaye Wade it am na lu mu wax ci mbay Diack nee na digganteem ak Mbaye Diack am na lu mu ci wax xam naa gars yi bu ñu xoolee laas daal du ñàkk dinañ ko am. le soleil. waaw soleil nag moom nee na. ah coupe du monde football U20 bi Pologne 2019 ah Sénégal nag ma ngay jéem a xool nu mu ciy mën a génnee de waaye nekk loo xam ne lu lu yomb lay doon. ah du nekk loo xam lu yomb lay doon eh, ci wàllu investissement tamit Soleil wax na ci eh, ne am na benn banque de la place fii banque boobu daal mi ngi offrir opportunité ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci diaspora bi. Uh-huh. waaw donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne eh, lu lu lu baax la donc euh, loolu la wax. il faut que BHS ak SICAP.

waaw waaw waaw moom laa wax ni ca laa jëm moo tax léegi ñoom mm, ma mm, mm, li mu wax déet yow li nga wax mu wax ko de yow da nga ne sànq ne état léegi-léegi mbiru rey nañ ko xoolaat xool nuñ koy doxale waa ji nee na nekkul ak bon léegi d'accord nga man yàgg naa kon génn nga si li nga nekkoon sax musuma cee dugg dama cee mos a dugg <laughs> mais man musuma cee dugg d'accord naa sëñ bi musuma cee dugg jébbalaat naa de sëñte bi ah man kay musuma cee dugg tarkal tarkal yow kay yaa ma ci bëgg a dugal waaye man dugguma ci wala <laughs> dugg jëm waa jom fan lañ jëma le témoin moom nee na Euh, Serigne Ababacar Lo qui kii trait de trait d'histoire lañ def ñoom ben pàcc mu yaatu 1840 ba 919 nee na savant multidimensionnel qui ci service bu maam Cheikh Ibrahima Fall. donc au Fall yi nañ dem ci témoin ñu liir li nga xam le bind nañ fa ci jaar jaaru Serigne Ababakar Lo. Mhm. waaw ci bosse tey bi. liggéeyal na Serigne Touba bu baax liggéeyal Le ko waaw. waaw liggéeyal na ko bu baax a baax a euh, police ci mois d'avril avril 3698.

bu mu wóor sa loxo càmmoñ dafa mel ni moom moo génn nii. eh waay fu ñu jëm. waaw donc mi ngi nekk nii ndeysaan donc mu nekk meurtrière proximité donc gis nga bien ndeysaan euh, Fatoumata Mokhtar Ndiaye moom it noonu la demee waaw donc mu nekk loo xam ne lu lu lu yéeme la ki nga xam ne nag mooy témoignage bi Daara Wade Ndiak Fara Wade Ndiak def la Ablaye Wade. waaw nee na Mbaye Diak pat patriote bu dem na. waaw am na nag yeneen mbir yi mu ci wax. Mhm. xam naa du ñàkk dinañ ko dinañ ko xoolaat. Mhm. dinañ ko xoolaat ndeysaan. booy bi dafa juum rek ah, juum ah dafa juum ah l'insulteur des femmes arrêté par la gendarmerie dafa juum dafa juum ah, xam naa du ñàkk ah dafa meroon rek bind texte boobu rek publier ko noonu mais na nañu moytu yooyu rek te yàlla xoola baal leen ko nañ ko baal defati doolu dafa juum ah, bu leen yàq àddunaam dimbali leen ko rek non non dafa juum dafa juum dafa juum fait bi nag lu musul am mhm. njombe ab sergent ci benn corps boo xam ne daal ñoom dañuy dimbali askan wi nee nañ moom moom dañu ne. waaw yow war na koy fay wax yow tamit. non non dañu ne. Hmm. am na matériel bu ñu koy jiiñ bu mu jël ci colonel am. d' accord ma ne lu ma si commenté. waaw loolu témoin ko wax la man waxuma ko xam naa bu ko gars yi xoolee du ñàkk rek mu mu am. Sud Quotidien. Sud moom ndeysaan. gars yi dañoo mer ba léegi. douleur bi maanaam métti foo ko natt rek. weesu na fa. ah non non non peuple sénégalais yëpp a jóg. dëgg yàlla lii ak yuy bëre yi xewoon. Sud Quotidien tey ci bu njëkk. Euh, si la si la xëy. ah si la xëy vraiment euh, ki nga xam ne mooy Binta Camara yóbbu nañ ko ci këram bu mujj yaa ngi dégg. Euh, Tamba waa Tamba waaw waa Tamba dañoo affaire bi da leen dépassé ba léegi parce que xalaatuñ ko woon yaa ngi dégg police nag moom nee na lépp lu jëm ci xeetu ay complot loolu amul nañ ko nañ ko arrêté waaw donc kon déjà loolu ñu am benn psychologue sax bu sud bu sud woo euh, mu ne Aliou Khoudia Diaw donc moom daal ci affaire bi. nee na daal dafa nekk ay conditions difficiles d'existence daal moom moo ko indi wala ñi nga xam ne seen famille euh, nekkuñu si jàmm wala moom ay autorité parentale yu demee noonu daal yooyu moo nekk li nga xam ne vraiment moom moo indi problème donc euh, sud euh, tey ci loolu la ci loolu la xëy donc sud daal vraiment xam naa bu ci gars yi duggee wax nañ aussi ci police vraiment ay chiffres yu doy waar yoo xam ne jàpp nañ ko 455 accidents 3698 nit lañ jàpp 38 étrangers 14 bandes lañ lañ démantelé 47 malfaiteurs en série ñoom ah, lañ ma ni la insécurité bi dina dina gën di néew. parce que lii moom. waaw foog ah ñu jóg si je pense que gars yi kooru kooru armée yëpp a ngi si ñu ngi si liggéey bu baax. foog foog foog ñu jóg si. foog ñu jog si léegi nag euh, stade. stade Codé nag ñoom dañoo xëy tey ñëw ci euh, lion yi. ñoom nee nañ daal li des daanaka euh, weer rek moo des ci kii bi waaw weer moo ci weer weer moo des ci euh, daanaka weer rek moom moo des ci Coupe d'Afrique bi te boo xoolee weer boobu des ci ci Coupe d'Afrique bi euh, def na li nga xam ne vraiment bu ñu xoolee tuuti Mbaye Niang ak Ismaïla Sarr mhm. ñoom dañoo lëjal Paris de sax xam nga ni saa ñu dajeeg ñoom sonal lañ ah ay jàmbaar nañu ñoom dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen kii Sadio Mané moom fi mu ne nii ndax xam nga daa bëgg a jël Champions League. man maa ngi xeeñ 2002 moo may xeeñ fu mu nekk ak gars yi gisoo loolu yow. yow mi ah. oui ci coupe coupe. non non c'est suñu joueur yi ñu ñu ñu ñu fëlee la. non dañu fël non équipe équipe bu mag la yam léegi nag problème bi mooy. Hmm. buñ leen coaché géré leen bu baax. ah Aliou mi def lu mu mën di. waaw non moom laa dama ne. Ah. maanaam xam nga du Aliou Cissé kese. Hmm. xam nga équipe nationale voilà équipe nationale ñun ñi sax si lañ bokk. dëgg la ah dañuy toog ci rajo bi di wax luñ neex ah. gars tok ci grand place di wax lu leen ne. ñoo ñu bokku ñu ci wa mais mais nak mais xam nga xam nga nopp amul kubéer nopp amul kubéer dañuy wax dañuy wax donc mi ngi non Sadio Mané ndeysaan day dem final coupe euh, euh coupe coupe bi. euh Champions League donc ñu koy ñaan yalla mu may ko si. mu may ko si ndam. Mm. Ah, donc euh, coupe de la ligue tamit final bi ah euh, kii la GF ak ak Jaraaf donc mu melni ñaari équipe génération foot ak jaraaf mu nekk ñaari équipe yoo xam ne ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci gën a mag donc déjà loolu daal nekk na li nga xam ne euh, stade loolu la génn. live euh, live Youssou Ndour bi euh, bu mu defoon yooyu neex na de. waaw loolu tamit Youssou Ndour ngay laaj ndax neex na. Ah, sunu làmb. moom dafa ñëw ci ki nga xam ne moom mooy Modou Lo xarañ. ni ba léegi. Ah, ah, Ababacar bi si nag jox gars yi koppar yii Ababacar daa am ci lu mu ne fi mu ne nii <laughs> da nga fàtte ne Ababacar dañ koo daane combat bi passé. ci même année bi mu engagé ñaari combat mhm. daje benn bi ak Balla Gaye mu daan ko muy demaat ci beneen combat boo xam ne combat revanche kooku du ko may dara combat royal la tamit mais kooku du ko may dara mais nu ngi koy mayee dara ah, da koo daane loon dèjà moom dina fexe nu mu ko daane ne chaise la ko daane loon defe naa nii la ko waaw da ko da ko tegoon ni comme ni ma la defoon keroog rek ah waaw waaw waaw da nga fàtte ni ma la defoon keroog rek léegi léegi moom nee na tuubal wax ji maa koy duma la déglu maa ngi tuub ci kàttanu yàlla ci kàttanam tuubal maa ngi jégalu ah, léegi nee na daf koy euh, déjà Modou la dafa problème parce que Eumeu day dem revanche mais deuxièmement garde le garde couronne Modou day problème parce que VIP la di représenter deuk xam nga parcelle deuk le un ah, ñu daan ko ci gay xam nga bu metti ci imagine toi légui mu pour couronne encore ñu daanaat ko. waaye léegi man dama lay poser benn question. xam naa on n'est pas des spécialistes en sport ou la lutte Oui, sous une Sène perte couronne mais xam nga du am revanche fii léegi ñaar ñetti at. pour Eumeu Sène am revanche kat ci non je veux dire euh, si ñeneen ni, je veux dire naka lay pour moi. non mais c'est parce que non mais c'est parce que Modou c'est parce que Eumeu. Eumeu bu perte couronne bi. Hmm? mais dafay nekk loo xam ne lu lu garaaw lay don. trop c'est-à-dire ci carrière am lay nek lu graw parce que léegi nit ñi pour bëreeg ñom dootul amati ben challenge. Hmm, hmm. amatul leen benn njëriñ parce que gars yi léegi kañ Modou Lo moo nar am problème. bu si bu Ama Balde. keneen ak ki keneen ak ki keneen. mais nag waa géej waaye Pikine yëpp ñooy. waaw mais nag Kader technicien bi. Hmm. Kader hmm. nee na ma Modou loo bu simee ko ba nga xool ko jàkk doo ko ñime neen na foog nga ñime ko ba bëreeg moom. déglu ma voilà euh, Modou Lo simee ko na bii Paa ak Balla Gaye waaye vraiment. Euh, oh, dafa je pense que dafa dafa dafa dafa voilà quoi dafa surestimer boppam trop ci ci ah. ci sunu làmb nag ñi ngi wane modlo gis nga ki kii sawaay mi ki mi ngi mais combat mak ak Balla bi mom c'était bon forme physique dañ ne woon dafa dafa joom ci poids bi waaw non non xam nga rek des fois day am erreur d'appréciation dem am erreur d'appréciation est que war na am euh, stade bi ñu toll waaw mais justement xam nga xam nga sank moy li ñu doon wax nit motul man waxuma ko de waaw ah, kañ nit motul yow li wax ci bir yow ngay wax fi non non déedéet dama ni nit ah, motul manam li ma la bëgg expliquer moy

Euh, dafay dafay dafay dafay saboter carrière am donc peut-être amna ci lu mu sukkandiku daal euh, li tax mu mu wax ko al lolou nekkoon xët yu njëkk yi nga xamné mom moom la ñu yéen kaay yi indiloon tay donc euh, waxtaan nañ ci walu espoir lion yi ah, ñu nar a ñëw waxtaan nañ également ci li nga xamné mom moy mooy ndem si yàlla si Binta Camara mhm. ah, ak enquête bi ni mu dégloo waxtaan nañ également ci policier yi waaw fitna gi nga xamné vraiment ñu ngi koy ñu ngi koy indil ñu ngi koy indil ñu ngi koy indil gars yi donc loolu aussi waaw band yi donc loolu band yi daal fi mu nekk nii peur bi dañ koo jël indi ko ci ci seen côté ci seen côté macha allah waaw ba 14h yi dina fi ñëw si King Feeling euh, Lisa Georgia nekk fii ba 16h kooku jën jël lenge yi maanaam 16 ba 18h si Jukebox International nekk leen si jàmb ba suba incha fii si King FM 99.4 Morning King 10h05 jot na ciao. amukinangana lo fete madu mudunyanga duganga nanga